Louis Guillaume Moutet juddoo Marseille juróom-ñaari fan ci weeru octobre 1857 ñu fal ko gouverneur du Sénégal moom moo njëkk ñëw moo wool woon sëriñ ba le 5 septembre 1895 ñu jël ab décision ni dañ koy génn yóbbu ko Gabon moom sunu borom xaarewu ko sawaraw àllaaxira at mi sëriñ bi ñibbisee en 1902 le 8 mai 1902. moo doon gouverneur u Saint-Pierre bokkoon ci Ilieu doon barab ba milliardaires yi ñoo fa daan daje muy màkkay may sa tend di noos juróom-ñetti fan ci weeru mai yor yoorub alxemes la wool woon Serigne Touba ci biiroo ba ca Ndar yor yoorub alxemes juróom-ñetti fan ci weeru mai la sunu borom ubbi montagne Pelée ma tiimoon dëkk ba beteex ba sotteeku ci biir dëkk ba ñaar fukki junniy nit ak juróom-ñett ñu ko dëkkee woon kenn amu ci bàmmeel Omar Diagne ñooñu la ëppoon ay ñoo ñooñu doon xeex sëriñ bi l'administrateur maanaam le le euh, euh, lieutenant moo génne ex ba Jolof sambalaw ba na tax li mu jébbal woon sëñ Touba yóbbu ko Gabon feebar jaune moo fi am muy ŋas mu daw dem France ñu dàq ko ni ko da ngaa def amende de poste muy taxawaalu ba nu mu faatoo le directeur des affaires politiques Merlin mi nga xamante ni moo bindoon rapport ci le 29 août 1895 un jeudi ba jeudi ba dellusee di le cinq septembre ñu wootee conseil privé ba ca bureau ba ca Ndar mu ñëw lire rapport ba mu bindoon sàkku ni sëñ bi dañ ko yóbbu Gabon en 1935 la ñu jël aw ñam def ca tooke poson ko am ku ñu bëggoon a éliminer physiquement. fay nit jox ko ko mu jox ko ko mu dem jaawale ko jox ko gouverneur Merlin mu lekk ñam wa loolaa ko rey mu Musaylamatal kasab Diagne xanaa laajoo l'administrateur de Saint-Louis Leclerc mi doon jël ci sëñ bi ànd ak Doudou Mbaye fan la mujj Soudan ca Mali di fonto fontoo soudanais ñu kortu ko ba bu demee àll ba wàññee ko di ko jëfandikoo ci benn ma euh, euh, néeg bu ñu abandonné lañ ko fekk mu faatu ba décomposé wu ba décomposé wu nëpp foofu la mujj damay bañ a guddal mais damay wax Omar Diagne ni ko ñooñaar la ëppoon ay moyen waaye ba ñu noonoon Serigne Touba fii la ñu mujj kon liñ la wax boo tuubul addinaa ngi sa kanam mu am nag ñuy koy jéem a défendre di jéem a ànd ak moom ma bëgg am lu ma bëgg a wax képp koo xamante ni leer na ma ni yaa ngi défendre mu la Musaylamatal kasaab Jaañ wala yaa ngi ànd ak moom bàyyi naa la àddina bàyyi naa la àllaaxira yàlla bu nu gisanteeti ci àddina yàlla bu nu gisanteeti ci àllaaxira ak koo man di doon nag laa wax ñi ngi koy layal naan lu tax ñu nekk ba tey wax ji mu waxoon 2015 2018 2000 mais loolu wax ju yàqu la génocide bi amoon Rwanda c'était en 1994 ren la ci fanweeri at mais ñi ci laaloon ba léegi ñu ngi leen di jàpp en Europe di leen tëj lan moo tax tubaab di wax naan X a été rattrapé par son passé yow bu fekkonte ni da ngaa rey ni daw fukki at nga dellu si dañ naan loolu jàll na buñ ko àtte Omar Diagne wax ji mu wax le 31 out la ko def conférence publique ba mu doon def ni mbindum sëñ Touba baaxut ak mbindum mag ñi dañ ko war a réparer loolu lañ jël bi ñuy déposé plainte ñuy dem jëli ni leen moo fi waxoon lii kon lu tax ngeen jekki ba léegi lu tax xeexu leen noonu moom borom nguul yi dafa naa moom bokku ci amut benn sénégalais 2018 ak léegi bu umpalee sama diggante ak Moussaïla Matel Kassab Diagne ñaata yoon la ko sama nguul wi dal waaye mbaam xamul gafaka kon yéen ñi may jéem a naan ah, sëñ Mbaye yow bu ñu la bu ñu la influencé eh, eh, politiciens yi eh, lii lii ne ma ni bàyyi bu leen ma fontoo man dama wër ba dajal dama nekk ci yoon wi ñu di ma ci wax ngóor si ma dem ba di ci dégg góor gi dem ba am ci ngóor si jël ko dugalaat ko ci yoon wi kon dootuma gone kenn ci yoon wi man duma nit ku ñuy influencé ba may jóg di xeex ak Omar Diagne yàgg na te jàpp naa ni ngóol wi dal na fi ñu nekk ci biir ñu nekk ñu dul murit ñu defe nii ñoom laa koy yemale mais ñi nekk ci yoon yi ba ñu jógee ngóol wi dal na leen kon li sëriñ bi waxoon rek ngir ba may guddal nun daal li nu dajale mooy Musaylama Musaylamatal Kazaab Jaañ ab citoyen sénégalais la tooñ na dañuy ñaan yoon ñu def li war ci Musaylama moomu ndax ab communauté la tooñ li sëñ Cheikh su fay wax fii communauté murid bu ñu fett su woon mu dee waaye ñun defuñu loolu dañuy wax bërëb bi attekaay yi muy tribunaux yi atte tooñu tax ñu def leen fi waaw Musaylamatal Kazzab Jaañ dafa tooñu wax naa leen ni ba ma juddoo ba léegi nit ki mën naa bañ sëñ Touba di ko nëbbu waaye ku taxaw ni sëriñ Touba nekkul ci sama xol ci moom laa ko gisee waaye sëñ Touba nekkul ci sa xol nun ñi mu nekk ci sunu xol bàyyeenu ko ñi may wax naan sëñ Touba deesu ko xeexal bu leen ma fontoo man damay reyante ngir sëriñ Touba yéen ñi ma koy wax kuñ ci daan sa mbër ca arène ba doo reer di xeex di toj yëfi jàmm ku sa équipe bu football ñu gañe ko ngay reyante ku ñu tudd sa leader politique nga jóg di reyante ah ki nga xamante ni moo ma gënal sama ndey gënal ma sama baay di sama yaakaar yi tey ak ëllëg maag ñaata million ci ay nit un va nu nit koo xamante ni jaam la bopp ca Adama ak Awa ba nëgë ni musta libre taxaw di ko fontoo ñu naa ma bul wax maa tey damay wax. jërëjëf Serigne Touba.